Assoudit Aimé Fall asalaamaaleykum monsieur président maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ak ñi mu àndal ñépp di leen jox seen wàccuwaay di leen encourager bu baax sax nag di nuyu sama coworker yi député yi di leen ñaanal jàmm di leen wax dem naa màkk ba ñëw ak kay lii la yàlla dogal ci man di nuyu njiitu réew mi ki tax ma taxaw fii laa wax moom président Macky Sall sàll a ko ameel njukkal nag Sénégal ñoo ameel Macky sàll njukkal li mu waroon a def yëpp def na ko ci yar gi ci am respect bi ci bëgg Sénégal kooku nag mooy patriote bu mag bi ak fulla géeg ngor gi monsieur le ministre dafa am rek lu ma lay ñaan mooy dama bëgg nga jaay ma Juan Branco ma def ko raxaskatu bool ca sama kër xam ni ñun suñu dëkk bii du ay caaxaan caaxaan ana France dégage France frappe ana ñu ñiy taal Auchan yi ana ñu ñi ne danoo bëgg dëkk bi tubaab yi génn fi ana ñu waxoon naa leen fii ba Sidiki Kaba toogee nga toog ma ni la jàppal criminel yi nekk ci biir ensemble fa sëbool am na criminel yu góor li may wax nii dafa dafa sérieux de parce que lu taar réew mi ñi nekk ci ensemble bi dañ cee bokk te sunu réew mi nag dañ koy caaxaanee mais réew mu am solo la ndax ka ka jiitee am solo may wax ak réew mi nag di jaale képp ku fi faatu ci ba criminel yi commencé ba léegi ah tey kon Sénégal benn bopp la jéem nañ ko xar mënuñ ci dara jéem nañ ko yàq mënuñ ci dara parce que na bu nu yëngalee yëngal am na ñu am xel ñu dëkk ci réew mii man Sénégal ma yónni ne ma neel Antoine Félix Diome ne ko jaraaboot ndax ginnaaw yàlla na dafa yor sunu séefti ndax moom la jox réew mi lan moo xew Sénégal bëgg jël réew président Macky Sall puusal ma toog day noonu il faut nga am jaar-jaar <laughs> réew mi balaa nga kaa yor da yaru réew mi balaa nga yor da am jaar-jaar doo doon criminel ne da yor sunu réew mi di faat ay nit di defi doomu pauvre yaa ngi jooyi ñi jur pauvre yaa ngi jooyi da a fàtte ñun ñun ñun ñii toog fii nii ci ensemble bi kenn doomam deewu ci ñi nga xam ni seen yoon newul ci lii nuy def la seen doom di de ñu leen di ger xaalis maa ci am lu ma leer man Antoine jël ma boo ma jëlee ma jàppal na criminel yépp xam naa leen barke alxuraanu karim li may wax du caaxaan dama leen a xam ay wuyu la na ki bandi sénégalais yépp xam nañ ko ñu ñeme ko wax koo fi ne ak ragal ko toog ni pat duñu nitu dara bëgguñu réew mi li ñu bëgg mooy torturer sénégalais ñu lox man ñi lox bokkuma ci ñoom xam nañ ma